gotta wake up early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord, Lord, need to stand up. Get me better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Allah. waa jànk yaa ngi seen bi yow. maa gis kay lu xe yow seen directeur bi boo la de yow. Hmm, xale lu muy laajte kii nii lay mel ci boo la dëkk sañsa lay def. du ay sañ bi foog ma wax ak moom. wax ak moom mi la. lay jox kat def fépp fu ko kenn dul xalaatee am na tool ba war a béy balaa jant bi jóg foog ma jóg. waaw monsieur le directeur. oui ça nga ni nga mel. yow sa crème ngay laajte. yow kii nii lay xëysee ci bureau bi saa su ne ñu ñi nekk moom xam nañ ne saa yu ñëwee day ñaxlaf te doo xam dara lu nekk ci moom nag bu amee stress doo ko xam. ah bu nekkulee ci ci ci ci jàmm doo ko xam day ñëw ak xàppi ñëw ak naayisam ak ñaxlafam. moo tax leer na dañoo ñu doo daal. ñu hmm. ma leen wax sama secret de dama leen koy wan lii tax mooy liggéey 7 jours sur 7 24 heures sur 24 te du ma sonn di yànjee nii. Euh, jibi gars yi ma doon laaj nag sama secret li tax ma nekk en forme euh, di mën a liggéey vingt quatre heures euh, sur vingt quatre heures sept sur sept fii la Aziz ginnaaw biñ la nuyoo fii nag laay jaar pour affaire yu baax yi nga expliquer gars yi man lan moo tax may nekk en forme Aziz waaw salaamaaleykum gaa yi comme ni ko gisee rek euh, fii mooy euh, Massi bi Chic nekk ci gannaaw immeuble Petit Gueye juste boo ñëwee ba ci poste courant bi rek da ngay tourné mel luy dem géej après ñun ngay jàkkaarloo quoi léegi comme ni ko gisee boutique bi mu nii ay collagène comprimé yi nga xamante ne day defar yaram baax na ci mag baax na ci xale baax na sax ci corona bi parce que corona bi il paraît boo faible dalay lay daaneel mais par contre vitamine C da lay dimbali sa yaram da lay yokk cawarte ba tax euh, corona bi du dara ci yow quoi léegi ñu dem ñu xool yi am na vitamine C am na magnésium am na zinc yii ay collagène la collagène plus vitamine C plus euh, biotine day euh, defar temps day tëj ay rew day euh, day defar lu bëri sa yaram articulation sax dafay defar day dalay régénérer en plus waay. am na ay protéines voilà masse sérieuse bi instant dafa jeex sax parce que client yi moom ñi leen gën a soxla am na masse sérieuse am na masse tech gis nga sio bi moo nekk nii voilà comme vous le savez, il y a gel de douche shampoing bain de bouche voilà yii mooy diw yi ñu ngi yi ñu ngi nii L'Oréal am a Dax bi y a pas mal de choses ay bagages yi nga xamanteni euh, États-Unis lay jógee té dañ nga koy jaay ba paré textes teg ci lu leer que di nga ñëwaat jëndaat quoi parce que li lay jaay vraiment baax na quoi. seen numéro de téléphone lan la. numéro sama numéro téléphone euh, 77 325 60 74 voilà quoi 77. 325 60 74 voilà sérum ay sérum sérum yi day tax sa yaram day lisse day am éclat euh, genre ku koy jël di ko booleeg diw wala nga koy booleeg euh, nga koy def def noonu kese day tax sa yaram day am éclat ba pare euh, day lisse quoi day tax sa jëkkër gën laa fan waaw am gën a kontaan day tax sax du la takkal ñaareel am na Victoria Secret ay parfum góor ak jigéen jigéen ñoo nekk nii si kaw waaw lii am na lii ay fond de teint la L'Oréal am na poudre aussi Milani L'Oréal mag am nañ ko am nañ lépp la nga xamante ni euh, baax na ci góor ak ci jigéen quoi ak ci paay ak mère yi mooy loolu yii moom ay xeetu baax baax ya nga xamante ne la xale yi jigéen yu féroce yi ñoom ñoo koy gën a yittewoo quoi gis nga yi mu ngi nii ay euh, deux pièces la am na deux pièces am na benn pièce am na ay combinaison am na ay robe de soirée y a pas mal de choses yi nga xamante ni ku fi ñëw kat dina gis dina ci gis boppam quoi incha allah rabbi am na ay ñu euh, koy mu ngi nii ay kii ay gel intime am gel intime yi nga xamante pour raxasu kanam la pour jigéen am aussi ay parfum pour kanam kanamu jigéen am a ay ay linge xam nga pas mal de choses quoi pour pour vraiment pour euh, dimbali askan bi quoi. mais am na ay dàll tamit pour jigéen waaw am na dàll am na lépp quoi am na dàll maanaam jigéen fi ñëw daal jàppal na sa jëkkër a takk ak ñaareel lii moom la from Massi Bichri. <laughs> fàttali ñu adresse ak numéro téléphone bi. voilà 77 numéro bi moo nekk noonu 77 325 60 74 boutique bi mu ngi nekkee euh, immeuble Petit Gueye juste boo ñëwee boo à ta à ta gauche ñun ngay jàkkaarlool Massi Bichri. voilà bu faites que na ku fi bëgg a ñëw aussi mon ma woo sama numéro bi 77 325 60 74 voilà. Bi mom comme ni ngi gisé ni vitamine C bi day tax day euh, day dalay lay ci cawarte quoi. parce que comme ni ma ko expliquer en fait corona euh, bu fe bu la bëggee daaneel da euh, dalay dalay lay da lay tellement que ba après yow à la fin da ngay affaiblir da ngay s'affaiblir quoi du coup bi dalay yok yokk cawarte saa yoo xëyee ñaar chaque jour nga naan ñaar da ngay nek ci cawarte gu naan kay macha allah lii moom maa ko wax mu ngi ni comme ni ngi koy gis nga ñaar chaque jour ñaar chaque jour ñaar inshallah rabbi di nga takaliko corona amna ci ba nga xamanteni bobu so pamel to lañ koy wax bobu dalay yokk cawarte day tax do am prostate day tax sa boy saw saw day day set wetch manam dalay jappale carrément te guddigi mom moom gaynde ngay doon mom moom macha allah kay sàppala kon euh, de ngeen ko sama gaay ñu bëgg a doon gaynde njaay fii la ñi nga xamanteni dañu bëgg a nekk en forme comme man je suis actif tout le temps chaque jour 7 jours sur 7 24 heures sur 24 sama po ngi nii. ñi nga wara bot boot wanal ñëpp ne gaynde nga. la Dubaï Takk daal gëza dara loolu weeru go. walaay jant bi jóg jóg